salaamaaleykum coach félicitations Pape Oumar Keita Seneweb dañoo gis ne bi ñu defee tirage Sénégal ak Égypte ñu daje nga yeewu ki nga xam ne mooy analyste vidéo égyptien bi newoon ci staff bi al Cheikhou Kouyaté ñu dégg ko mu ne ñoom bi ñuy def série penalty yi à leur grande surprise dafa mel ni dañu leen doon espionné est-ce que paramètre boobu mooy le fait d'avoir travaillé avec un taxul égyptien yooyu peut-être bu jaay seeni information wala Égypte am longueur d'avance par rapport à la connaissance de l'équipe merci. waaw waaw loolu tamit c'est bien que nga poser ma question boobu parce que c'est important que a dellu si euh, je crois que il faut que nit ñi comprendre ni que équipe nationale lañ nekk te équipe nationale du yëfu caaxaan euh, lu am importance la am na ay décisions yoo xam ne bu ñu koy jël nañ ko xalaat xalaataat ko euh, déjà kooku ngeen di wax Moustapha lu tudd Moustapha nag égyptien la. sama xarit la koo xam ne la en réalité bi ñu demee Coupe d'Afrique Égypte bi boo xoolee ba xool FIFA wala CAF boo leen demee compétition dañuy am benn njaatige boo xam ne moom la leen di booleel waaw Moustapha suñu njaatige la woon Égypte tey loolu woon maanaam bu ñu ñëwee moom moo ñu yóbbu nu ñu soxla moom moo ñu fay yóbbu et cetera mais Moustapha amul dara loo xam ne bokk na ko technique bi. Moustapha mosul nekk analyste video pour dire rek parfois da ngay jóg suba teel jënd benn journal nga gis nit ñi bindi fa loo xam ne doo xam bopp bi doo xam geen bi Moustapha mosul nekk suñu vidéo Moustapha mosul liggéeyal équipe nationale suñu teyiloo la woon waa CAF ñooñu ko boole woon comme égyptien la suñu soxlaa garab gungee ñu fa bi ñu demee coupe du monde tamit beneen beneen russe moo fa ne woon bi ñu ñëwee nii CAN bi tamit Cameroun benn Camerounais tamit moo nekkoon teyiloo mais Moustapha amul dara loo xam ne bokk na ko staff technique bi loolu vraiment loo xam ne la merci que nga posé ma question boobu pour que ma mën ko ma mën ko leeral mais suñu téelu woon mais nag nit koo xam ne la dafa xam football nit koo xam ne dana tamit ci yëfu football lay lay yëngatu donc euh, il était tellement bien ak ñun que ñu incorporé <laughs> ko comme il se mais en réalité Moustapha du analyste vidéo du sama analyste vidéo musuma liggéey ak moom musul nekk analyste vidéo te wax dëgg yàlla nit ku baax la te suñu équipe ñun xam nañ nan koy protéger waaw donc euh, bokkul ak moom dara dara dara loo xam ne technique mi ngi fa wala tactique mi ngi fa loolu daal dama ko bëggoon leeral. merci euh, joué woon nañ fa mais ñu woon nekkoon waaw euh, Caire moom entre euh, Égypte ak euh, ak Sénégal mën naa wax ni que respect moom sa am suñu diggante. man je ne me rappelle pas en tout cas match boo xam ne Égypte ak Sénégal joué nañ ko mu demee naka sudul noonu te li ma gëm mooy que ñaari match yu ñuy dem def noonu tamit ay match yoo xam ne rek. égyptiens yi respecté nañu te ñun tamit respecté nañu égyptiens yi euh, di profité du nuyu égyptiens yëpp parce que tamit bi ñu fa demee 2019 wax dëgg yàlla dëkk boo xam ne la dañu mës a accompagner hôtel bi ñu nekkoon vraiment ay nit ñu baax a fa nekkoon euh, nit ñoo xam ne accompagner nañu équipe bi bëgg nañu équipe bi donc euh, je crois que lu gën a am solo mooy que ñun ñu concentré wu 19 dañ demoon mais joué ñu woon contre Égypte bii tur nag Égypte nañuy amal affaire te xam naa ne égyptiens yi c'est des gens vraiment très patriotes dañ nekk derrière seen équipe bi accompagner seen équipe bi vraiment def tout pour que seen équipe gagne donc ñun ñoo war a dem foofu vraiment ak euh, humilité bu mat mais concentration ak confiance boo xam ne yàgg nañ ko am si suñu si suñuy déplacement donc amuñu si benn sikki sàkk am nañu yaakaar ni que incha allah dinañ fa dem ak jàmm yàlla may ñu fa ndam ak jàmm mais xam nañu xel ni que dëkku jàmbur surtout dëkku bu mel ni Égypte match bi warul yomb te du doon match bu yomb yal nañu fa yàlla may ndam rek. merci laaj bi. waaw retour Sabali bi moom tontu naa si woon encore je crois que Grégoire ak euh, euh, posé nañ ma si question boobu comme na ma ko waxee rek euh, Sabali moom jour boo xam ne la yàgg na ci tanière bi ñëpp xam nañ ko si moom ak na tey ñu constitué benn. benn duo boo xam ne bu bu intéressant la tey pour man entraîneur am xale bu mel ni Youssouf Sabaly am xale bu mel ni euh, Bouna Sarr plus de ci équipe euh, ci équipe nationale bi parce que dina am ay match yoo xam ne xëy na euh, Sénégal dafa war a gën a mën a défendre Sabaly défenseur boo xam ne la ñëpp xam nañu ay qualité am Bouna Sarr tamit bu dee tey soxla nañu équipe boo xam ne war na nekk équipe bu gën a offensive Bouna Sarr am na potentiel boobu même bu dee xam naa ni que défensivement tamit euh, défenseur la je crois que loolu vraiment possibilité yooyu pour entraîneur possibilité yu am solo la euh, mën a am mën a mën a mën a mën a am confiance ci benn joueur mais am beneen confiance encore ci beneen joueur loolu yëpp c'est intéressant parce que dafa lay jox encore possibilité yu gën a mag ci ci composition équipe bi di féliciter Sabaly parce que liggéey moo tax ba mu dellu si ci ci tanière bi xam na ko bu baax il ne vient pas donc di ko di ko ñaanal rek mu dal ak jàmm. ñu euh, merci beaucoup coach Pape Fara Gningue journaliste la TFM euh, di la féliciter féliciter ñëpp ñi nga àndal ci saako bu mag bi euh, lu ma bëggoon laaj rek da ko waxoon sànq ci français ba waxoo ci wolof pour un peu ak rajo yi importance su match bi gannaaw bu nga jëlee Coupe d'Afrique yaa ngi wax ne qualifié Coupe du monde dafa nekk lu am solo. leneen lu ma ciy ñambaas rek mooy Krépin Diatta fan la toll ak tamit ci blessure bi yow yan nouvelle nga ci merci. waaw Krépin moom ñëpp xam nañu blessure bu mu am du blessure bu ndaw blessure bu blessure bu mag la boo amee tey euh, tubaab yi dañuy wax rupture de des ligaments croisés au genou mu nekk mën naa wax ne que blessure bu gën a mag ci ci footballeur. Euh, il y a quelques années genre blessure boo ko amee mën naa wax ni que dootoo footballati waaye tey nu ma ko waxee sànq rek je crois que cinq dernières années lu gën a avancé ci mbirum sport